mbokk yi asalaamaaleykum ah, mbooloo mi yaakaar na ne weddi moom gis bokk ci pour seet teeru bi ni mu xate ba tax na mun na teeru mbooloo mi bëggoon ñëw yépp te may ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñoo mun te si Euh, di leen masawu njëkk euh, di leen ñaan tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk si biti ak ñi nekk seen kër yi que volonté bi ñu amoon ak bëgg-bëgg bi ñu amoon ak pas-pas bi ñu amoon bëggoon na fas yéene ñëw teew ak ñun ci bis bi te yàlla dogalu ko ñu leen di ñaan bu bés ba le 17 novembre ñu jóg. am jot bi yàlla may leen tal may leen ñu dem ci urne yi sànnil ñu seen carte ñu dem assemblée indi fa assemblée bu bees tabax Sénégal bu bees li ma wax léegi ci joŋante yi est yi weesu dama ci ñu def lépp pour suñuy moyen waxtaan ak suñuy mbokk suñuy xarit suñu am di jàmm waane ñi fi jóge tegal ñu ay ndëgg sërëx yoo xam ne teguñ ko fenn daal di jël écarté ñu mais ñu jàpp ne xëy na loolu la suñu borom dogal ñu gëm ko nangu dogalu borom bi par yàlla def ñu tas assemblée bi war a dëgmal ci élection yu bees mais ma bëgg a xamal mbooloo mi ak ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun di liggéey que assemblée nationale bi buñ ko xeeb assemblée nationale bi mën naa wax ne mooy deuxième tour élection présidentielle ñu jàppe ko noonu gëme ko noonu te fas yéene te demee noonu ñu fexe ba bu bis ba ñu jox ñu majorité

kuy champion ci créer emploi mi ngi nii ci seen biir taxaw loolu laa gëm te di ko bantu di ko wax saay su nekk ah, may seedeel mbooloo mi ne man ba mu amee fukki at ak benn fukki at ak benn laa wax nekk xale bu ndaw laa xalaat doon tëdd saay su ma tëddee guddi bu nit ñi nelaw man damay toog di gént di xalaat di xalaat ci sama ëllëg fan laa bëgg a dem lan laa bëgg a doon te boobu fukki at ak benn kese laa danaa toog ñaar ñaari waxtu di xalaat sama ëllëg nan laay def ba yegg fi ma bëgg a jëm ma mës am benn ambition mooy ambition ban ambition nekk multi milliardaire ma wax ko nëbbuma ko loolu moom mës nekk sama mër loolu laa mës a gëm saay su ma tëddee moom laay xalaat mu nekk sama objectif mu am lu bari lu mu laaj ay sacrifice yu dul jeex ut ay référence pour xam nan ngay def ci pour yegg ci yoon boobu ma ànd ci ak dàll ak yar ak tamit euh, gestu jàng lu borom xam-xam ba grec ba waxoon muy Socrate muy tudd ko ci grec muy ñooti sewaton loolu sunu borom xam-xam yi sunu maam yu tedd yi sunu wasila la ki ñu yaakaar àdduna ak alaxira muy Cheikh Ahmadou Bamba wax ko ci benn bataaxal bu mu yónnee woon euh, ko sëriñ Fallou Mbacké sunu sëriñ ak sëriñ Mamadou Moustapha xamal ndaw day xam boppam kàddu yooyu ba mu tàbbee sama nopp laa ko jàpp moo ngeen gis ma ci melokaan bu mel ma ànd yar ànd dal ba pare gëstu man maay kan gëstu fu ma jóge xam maay kan xam lu ma bëgg xam lu mën xam lu jom xam lu ma def ak lu ma war a loolu nag moo tax ba lu bëri ma jombale ko sama bopp ñuy wax ñëpp ci man saa yuñ xëyee nekk ci sama der bi di wax nekk loo xam ne dara du ci dëgg dara man képp ku ma xam xam ma ci liggéey ak jël li ma yàlla jox ba mu ma ànd ak kook samay njaboot ànd kook samay mbokk ànd ak ko ñi ma yàlla booleel moo tax du ma ci boole ñàkk fayda du ma kenn aussi du ma ci yàpp lépp lu may def fulla ak fayda laa booleel moo am ambition boo xam ne moo doon li ma leen wax léegi créer emploi mais créer emploi du rek ci Sénégal ba may mébét pour jóg di liggéey di tabaxal sam bopp bëgguma woon yem ci Sénégal dama bëggoon tekk ci senegal mais du yem ma tekki bitim réew te loolu yàlla suñu borom defal nañu ko ba nga xamante ne tey macha allah ñu ngi employé ay sénégalais mais aussi ñu ngi employé vingt neuf différentes nationalités ñaar fukk ak juróom-ñeenti xeet yoo xam ne ñu ngi ci àdduna bi di ay tubaab di ay xeet yu bari ci Europe ci Amérique ci Asie ak ci Moyen-Orient may wax suñu mbokk jullit yi ne emploi saoudien sax Arabie saoudi saoudien am naa ci ñaar ñu may xeel di ma gonta te pourtant nag Sénégal gii lañ jó jóge fii lañ bàyyeekoo fii lañ jàngee jàng bi aussi yàlla suturaal ñu defal ñu tawféex bien que ay jullit lañ bokk ci tarixa sama maam aussi jaxasoo woon ak tarixa yépp mbokkoo ak tiijaan yi ñu samay mbokki deret ma xam loolu gëm ko moo tax lu ñu def ma bokk ci dugal ci sama alal lu ñu am ma ñëw ànd ak ñoom di ko def ci tarixa yépp loolu tax li ma gëm muy li anglais yi di wax give back to your community bu la yàlla dimbalee ba nga tekki ba nga war a gëstu sa askan loolu ci laa nekk tey ci lay nekk suba ci lay nekk gannaaw ëllëg loolu laa gëm mooy sama ADN man képp ku may seet ci social nga may fekk ci social nga may fekk ma bëgg aussi ndaje mi ñu am muy coalition bi ñu am di ànd beesal Sénégal ñu rassembler le maximum de personnes nit ñi nga xamante ne ñoom seen yitte yépp mooy def social loolu laay ñaan loolu laay woote que ñëpp fédéré ci loolu indi ñëpp ñu bokk xool ñi nga xamante ne social kese la ñuy dox moo leen intéressé ñu xatiloon ci suñu coalition ànd ak ñoom ba li ñàkk bi am Sénégal ñu dindi ko fi li may wax nag moom mooy distribuer de la richesse maanaam loo am te yàlla séddale ko nga séddale ko sa askan loolu ci laa nekk ba benn diir a ah, ni ñi ne ma nag a ah, Abdoulaye Sylla fi mu toll nii réew mi jaaxle nañ jaaxle nañ te fi ñu jëm ah xamuñu ma jóge woon fii en 2020 laa fi jóge fekk ay tolof tolof ak ay ndëgg sërëx yoo nga xamante ne ñu ngi ko doon tegal ci sama liggéey est chef d'entreprise qui a 2000 emplois en 2020 nga la première entreprise de BTP du Sénégal avec un chiffre d'affaires de 52 milliards un carnet de commandes de 350 milliards Il y a Il y a ko def nañ ko nañ marché nañ ko toroxal ba loolu moo war ci sama bëgg jàmm ci sama bëgg Sénégal bu dal ma jël samay bagage comme man am naa feneen am naa kër New York boo xam ne moom foofu kenn du ko fa fekk kenn du ma fa fekk di ko toj ndax biñ tojee sama kër Saly il fallait que ma génn dëkk bi ndax amoon fu ma dëkk ma obligé euh, dem New York ndax man maa fi nekk nekk mag sama njaboot ndax liggéey bi ma am au niveau international damay dem ci dëkk yu bari du ma toog booy xool sax Dubaï laa gën a dëkk ndax mooy sama résidence mais sama njaboot ñu ngi New York mais loolu lépp liggéey bi moo ko waral ndax li ma doon ñaan yàlla ñaan bi moo nangu ba mënutuma toog fii at il faut may génn bima suis venu muy 2020 fi ñëwaat en 2022 muy ñaari at yo xamné ak lu top ñaari at yu manké yo xamné sama société naka dañ ko euh ñi ci ci télé waxé ak radio samay nit yi may liggéeyal xam nañ ne nañ diir ñaar lu waaye dama leen koo fay ba mu sëkk bi may dellu see li nga xamante ne moo desoon ci bor yi ndax dama xaalis bi ma fi bàyyi woon dañ ko fay ay salaire ba salaire yi jeex bi ma ñëwee li desoon nga xam ne xaalis bi nekk fi woon dama jëlaat sama xaalis mu day si deux milliards six cent fayaat ko ay salaire loolu loolu nag moo kooku nag bu leen waxee ne mën na créer emploi dana créer emplois ngeen war ko gëm te fii Sénégal fi ñu toll ak ndaw yi fi ñu toll lenn rek moom mooñu wax war moo ñu ñëpp ñu taxaw takku def tout ba jigéen ñi ndaw ñi mag ñi ñëpp ku ci nekk am loo def may wax ne créer emploi bu ñu ci kenn nax bu ñu kenn nax bu ñu kenn seno bu ñu indil ay chiffres di ñu indil ay théorie di ñu indil wii mais loolu jëmul fenn man dama pragmatique gëm lu concret ku leen wax ne ci état état mën na créer emploi da leen di wax lu ko neex état du créer emploi secteur privé national moi, créer emploi motax ma suis passionné, yalla a majorité ñu défendre le secteur privé national je ba nga je li nga Chine Singapour Dubaï nga xam biñuy bi ñom dañoo secteur privé 50% ba 50% secteur privé national loolu qui tax tay ñu yex fi ñu yex compétir au niveau international loolu nak la bëggal Sénégal loolu la chef d'entreprise yi Sénégal ndax man soxoruma tolluma fu may nekk naan maa ngi siis nit wala maa ngi iñaane nit ndax yàlla dimbale na ma waaye nag bu ñu yàlla dimbalee man lu ma gënaloon mooy yàlla defal ñépp jàmm yàlla defal ñëpp tawféex yàlla jox ñëpp koom-koom ndax boobu ci la réew mi di gën a neex bu ñëpp amee ci la réew mi di gën a neex wala boog bu ñëpp mënta am li ëpp ci mbooloo mi li ëpp ci askan wi ñu am mënal seen bopp di fajal seen bopp loolu mooy sama mébét ma ciy woo aussi le secteur privé national di leen xamal ne yëg naa seen coono ndax coono yi ngeen di daj jànkonteel man moom lay jànkonteel y a une pression fiscale terrible nit ñi ñu ngi fay impôt et wax nañ ñi ci tubaab trop d'impôt tue l'impôt nasaraan yi ñoo ko wax ci science bi te ku dem gis ko ñu fas yéene nag suñu yàlla yóbboo assemblée ñu fexe ba impôt yi ñuy imposé chef d'entreprise yi ak jigéen ñi entrepreneurs yi entrepreneuses yi ñi nekk ci pêche bi napp bi agriculture bi ak des ak l'artisanat ak transport ak yeneeni secteur ñu fexe ba jàppale leen fexe bañ am accès au financement comme notre famille nous avons accès au financement nous à travers l'Assemblée nationale jéem voté une loi yoo permettre encadrer Nous ñu développer ces activité ba nous comme am Nous ko boru Sénégal bi ma fi déggoon fan yi ñuy wax mais bor boobu waa bitim réew ñoo ñu ko lebal mais balaa mu doon neex sénégalais yi am jël seen xaalis dugal ko ci banque yi ba bu nguur gi soxlaa xaalis sénégalais yi lay leb loolu mooy réew mu bëgg a jëm ci développement donc ñu bàyyi naxaate yi bàyyi iñaan bi bàyyi teg bët bi

man su ma ko defee xëy na junni ak junni ak junni junni sénégalais mën nañ ko ëpp dañ leen a joxul opportunité yi rek mais buñ leen ko joxee ñu gëm naa ne danañ ko def ndax man musuma jël sama seede jox ko nit ne ko damay demande emploi te gëm naa ne sénégalais yi aussi ñi ci ñëpp loolu lañ gëm dañoo bëgg entreprendre seen bopp bëgg ñu leen di employé dañu bëgg yëngatul seen bopp amal seen bopp di jëfal seen bopp loolu nag laa bëgg bu ñu demee assemblée nationale ñu fexe ba loolu ñu jëmmal ko dooleel ko jox leen le pouvoir d'achat pour que ñu mën a accéder au financement jàppale jigéen ñi jàppale ndaw yi jàppale mag ñi ba lépp lu ñu bëgg ci réew mi yàlla dimbali ñu ñu mën ci yegg ah fi mu toll nii nag am na leneen loo xam ne. dañ naan balaa nga naan naam ne fa mooy liggéey koom balaa nga koy am day fekk jàmm day fekk jàmm am cohésion sociale bi nga xamante ne moom amoon Sénégal nga xam ne suñu maam yi sunu sunu sëriñ yu baax yi ñoo ko fi sampoon sunu président ancien premier président de la République du Sénégal mu ñuy wax Léopold la Senghor

ñu mettre un terme à ça tabax Sénégal bu bees Sénégal boo xam ne day dox ci démocratie du rek nit ki da ko contre boo xëyee convoqué ko bu subaa nga convoqué waat ko jiiñ ko ne ko da ngaa yóbbu or or boo xam ne moom bañ ko yóbbu moom nekkul ci dëkk bi nit koo xam ne nekkul ci dëkk bi nan lay jëlee avion naan ma ngay yóbbu or loolu xam ngeen ne mënut a nekk mbokk yi ñu tege ci ci loolu doyut ñu tegal ma tuuma ne ma ku xam France nu mu mel ak restriction ya fa nekk ak li am maintenant sur le blanchiment nga xam ne ay règles yu strictes la nga ne nit mën na jóg yëkkati 2 millions d'euros dem di ko verser espèce ci compte dégg gi sax dafay jigéen dafay jéggi dayo loolu nit ku ko gis am expérience état buñ la joxee kayit googu da nga ko war a xotti sànni ko xam ne kayitu mbalit la waane defuñu ko pour yàq sama der tilimal ma dañ ma ko tuuma waane nag man yàlla daf maa dimbale ba ah, sama sëriñ ah, cheikh sidi maxtar mbakke ah, cheikh ndiaye mi fi toog mat na ma seede ba ma fa doon ndax fa doon dem ben ben guddi Cheikh Ndiaye mi toog dafa wax ak moom di ñaawlu tuuma yi ñu teg sama der sëñ bi ne ma tuuma yooyu wax jooju yëkkati ko kese la lay jural te loolu laa gëm ma bëgg nag à partir du 17 ñu ñaan sénégalais yi ñu jël seeni carte ba mi ma

engagement bobu nak moy sama engagement engagement la bo xamne ay nit wax nañ ma mënon na la ci baña fekk man leen dedet parce que sénégalais la comme ñep bu sama réew soxla dama wara a jóg bàyyi lépp lu mënon def ñëw tok xex ànd ak ñom ba yàlla def li gën lolu moo ñu dugal ci li ñu bëgg nak et di leen ko ñaan encore di ñaan askanu Sénégal fi ñu jëm ñu suñu coalition bu baax xool li ñuy proposé ñun leen nax tollu ñu la politique du développement lañ politique c'est dans l'action ma terminer ci li gaa yi di wax euh, dañoo bëgg a jubbanti jubbanti nag moom ah da nga war a teg ci njub lépp loo xam ne da koy def nga xool ci yàlla ak yonent bi nga xool xam ne nguur day jeex nguur day jeex ku weddi laaj ko ñi ki fi nekkoon te tey ñu dem feneen bàyyi ñoog réew mi ba ñeneen jël ko ñii ko jëlit nañ xalaat ne suba day jeex day génn ci seen loxo tàbb ci yeneen loxo ba lépp lu ñuy def ñu def ko ci dal def ko ci teey def ko ci teey te xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar te ñun ñëpp ay mbopp lañ ñun ñëpp ay mbopp lañ loo fi def tey bu subaa di nga ko rëcc ndax bu di nga toog wéet rëccu la nga defoon donc lu ñaaw xaju fi nañ ko jël sànni fële te jëm ci li nga xamante ne moom la askan wi bëgg askan wi soxla ko muy nan la ñuy def ba coono yi ba jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi ñu saafara ko te ñu leen di wax ne ñun ñii de boo leen ñu dénkee seeni carte bu soobee yàlla ak yonent bi ak mag ñu baax ñi nga xamante ne suñu yaakaar fi ak fële danañ ko def ni ngeen ko bëggee tegal leen ko ci yoon yu baax ba nga xamante ne doo leen ci am lu leen metti doo leen ci am loo leen di rëccu ëllëg ma leen di ñaanal nag que ñi nga xamante ne ñëw nañ fi yàlla yóbbu leen ci jàmm ci seeni njaboot buñ demee aussi moo dóor bi benn la wax ak njaboot yi wax ak mbokk yi que ñëpp moo dóor bi benn la nañ tànn coalition ànd beesal Sénégal jërëjëf jërëjëf jërëjëf